projet ñu daal di ko teg ci ñett pàcc jub jubal ak jubanti fexe rek ba am Sénégal bu naat moom boppam ci lépp lu jëm ci wàllum koom jaare ko ci luñ duppee économie endogène ministre bu bees bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum finance ak budget di Cheikh Diba moom li mu jot a xamle mooy fi ñu jëm du doon lu yomb wante rek suñu sukkandikoo ci économiste bi yooyu le kàddu lu xel mën a nangu la Euh, message boo xamante bi message d'alerte la pour xamal nit ñi rek ne duñ toog rek lépp sotti. Euh, bala ngaay mën a xam réellement situation bi foog nga def audit comme ni ko euh, président waxee ak premier ministre def audit xool ci ministre yëpp ministère yëpp voilà ak les direction directions nga xam exactement l'état des lieux su boobaa nag mën nga prononcé wu. ak lii di plan Sénégal émergent nguur gi defoon ci xaalis bu bari ci wàllum développement wante it. lu mel ni Puma DER PUDC ak SEMI ak li mel ak budget bu tolloon ci sept mille trois cent milliards de francs CFA mu mel ni rek faaw rek ñu amal ay coppite ci anam bi ñu amalee yooyu les dépenses ba tey suñu sukkandikoo ci kii di Mor Gassama. noo xalaat ne da nga jëm ci kanam te amoo secteur privé bu fort da nga war soxla ay capitaine d'industrie waaw am ay champions nationaux te loolu nag euh, ñooñu. ñoom ñooy tax utum xay gën a yomb su boobaa da ngay am te créer li ñuy wax inter articulation entre secteur primaire ak secteur secteur secondaire te loolu àlakuli àll foofu loxo gouvernement am nekk ci. jot nañu xoolaat anam bi ñuy amalee lii di finance publique. yaa fi nekkoon ñu jox la nga doxal comme doxal nga pare dañu gëstu ci ni nga doon doxalee da ci jaar yoon ak li ci jaarul yoon parce que boo ko deful sax déjà pour nga joyanti day jafe. ñu bari daal ba tax na ñuy xaar ba xam ana lan moo nar a nekk coppite yi nga xamante ne nii lañ nar a amal ci anam bu ñu yoree alalu réew mi.